situation bi nekk actuellement ci îles Canaries li nga xamante ni moo xew îles Canaries foog naa autorité espagnole yi la gën a jaaxal ndaxte ñoom seen jëm bopp ñu ngi wër solution mais ba tey amuñu ko et je pense que dañ lay wax sax ni lan moo xew seen dëkk ne naam dañ da naan euh, ay sénégal yàgg nañoo ñëw jëli gaal pour ñëw seen foofu seen dëkk pour mën a émigrer mais li nga xamante ne moom la ñu gis. actuellement mosuñ ko gis loo xamante ne lu bees la ci ñoom parce que tey dañuy jox ci chiffres yi nee nañ euh, ci sénégalais ci ñi nga xamante ne ñoo ñëw euh, jëli gaal quatre-vingt-dix pour cent yi ay sénégalais lañ te loolu xamante ne euh, mosuñ ko gis dañ la naan moo xew seen dëkk lan moo tax tey sénégalais di génn seen i dëkk di ñëw fii et tey mu nekk problème bu compliqué bu doy parce que tey xale yi nga xamante ne suñ ñëwee wala. képp koo xamante ne dafa jël gaal su nekkee dafa ñëw ci dëkk boobu Canaries îles Canaries parce que îles bi huit îles la mais daa am ñaari îles yu mag yoo xamante ni mooy euh, Tenerife ak euh, Las Palmas euh, donc ñi suñu wàccee ci yeneen dañ leen di véhiculer indi leen ci ci camp yi nga xam ne ñoo nekk ak Tenerife wala yóbbu leen Madrid pour un peu désengoter et ñooñu dafa am benn diir bi nga xamante ne moom lañu war a mën a toog ci camp yi. parce que su nekkee majeur nga amoo droit toog fa plus de trois trois mois su nekkee da nga trois mois nga da war a génn donc du su nekkee amoo loo xamante ne euh, foo jëm wala amoo ku la jàppale amoo foo nekk wala amoo looy def da génn ci biti soo génnee du coup da ngay am problème parce que da am problème lan ngay am doo am foo dëkk doo am foo nekk et loolu day indi ay. taxawaayu ci mbedd yi wala dugg ci loo xamante ne euh, warul et ça c'est problème la boo xamante ne fële ca euh, Îles Canaries euh, sénégalais yaa ngi koy dund tey ci sooy dox ngoon bi walla ci journée bi da leen di gis boo yi nga xamante ne ñoo nekk ci. ci camp yi booy sax lan ngeen di wooy booy nekk ci camp yi da leen di gis ak seen i bracelet ñu doxantu wala jënd ay quelques achats ak seen i accompagnants des fois ñu ñu ñu gunge leen mu nekk problème bu délicat ci cadre boobu sax lañuy ñëwoon ca Las Palmas pour euh, euh, toog ak ay autorités yoo xamante ne dañuy liggéey ci ci ci immigration et ci durant deux jours euh, boo xamante deux jours na yoo xamante ne fédération africaine des îles Canaries yi maam Cheikh mbay jiite ko euh, euh, dañu moo amoon ay deux journées yoo xamante ne journée de réflexion pour trouver une solution et trouver des solutions solution boobu foog naa xamuñ fañ fi ñuy jaar ba am solution mais xaw a wut ay solution pour mën a améliorer li nga xamante ne moo xaw ci îles Canaries tam bi dañ ko tënk ci xale yi ak euh, mineurs yi ak euh, adolescents yi parce que dañu remarqué ne ñu bëree bëri ñuy ñëw instant yi ñuy commencé ñëw bu bëree bëri xale yi dañuy ñëw adolescents yi dañuy ñëw tey ki nga xamante ne mooy euh, ki nga xamante ne poste bi muy am comme poste médiateur de la République du Sénégal adjointam bi ba muy exposé nee na mille jeunes mineurs ñu ngi ci camp yi. et mi yooyu ci condition yoo xamante ne peut-être que conditions yi donc baax noonu euh, ci seen système bi 1700 plus de 1700 jeunes disparaître nañ te xamuñu fan lañ nekk donc mu nekk problème boo xamante ne. daf leen di parce que xale yooyu suñu génnee amuñu fan la ñuy dem euh, mën nañu am ay problème mën nañu daanu ci ay délinquance wala daanu ci ay euh, trafiquants yoo xamante ni dañ leen di utiliser à d'autres fins donc ci journée yooyu aussi ay médecins yoo xamante ne ñoom ñooy accueillir les migrants wane nañ ay photo yu day waar ay yoo xamante ne seen gaañu gaañu na ñoo xamante ne seen yaram yi day dagg am na ñoo yi day seen toogukaay day day day lakk à force bi ñuy toogee noonu muy yàggee dañ indaale ay feebar ay feebaru bët ay gaañu gaañu métti yoo xamante ne des fois sax ci salle bi daf leen doon choqué parce que image yu xaw a daw yaram la am na maître Patrice Kabou bi nga xamante ne moom aussi dafay. dimbali bu baax a baax migrants yi pour ñu am benn stabilité ci dëkk bi wala situation seen i kii dëkk yooyu exposé na et problème mu traduction bi aussi soulevé nañ ko parce que traduction bi dafay posé problème des fois nit bëgg a wax lii wax leneen ñu bind ko loo xamante ne daf koy lor ak yeneen i problème te yoo xamante ne dañ koy dañ koy dund foofu ca ca Îles Canaries fële nit ñi naan nekk nañ peuple boo xamante ne bu compréhensif parce que tey je pense que même Sénégal euh, nombre de sénégalais wala africains suñ doon bàbbeekoo mu nekk ay tubaab di wàcc Sénégal danañ am benn comportement bu ñu am mais ñoom ils sont très compréhensifs et tout mais le regard mu ngi commencé changer parce que loolu mën na dem ba jur ay xénophobie ak euh, racisme parce que ñoom léegi suñu gisee noir rek tam dañuy foog ne te te gaal bi nga jaar pour ñëw je pense que tey autorité solution tey amoon na table ronde boo xamante ne def nañ ko jeudi avec euh, policiers yeeg gendarmes yeeg garde espagnol yeeg yooyu ak euh, ki nga xamante ne mooy préfet dëkk ba pour mooy délégué lañ koy woowee délégué bi délégué bi pour ñu wut gën a wut réfléchir autour de ce de problème bi nga xamante ne sonal na ne ñi sonal na seen dëkk sonal na leen ak comme ñun ñu sonalee parce que ñun aussi suñuy doom la ñuy perdre am na ñoo xamante ne naam. accès nañ mais am na ñoo xamante ne accès wuñu am na ñoo xam ne dañuy dee gaal gi et c'est un problème très très très compliqué même si euh, euh, sauveteurs yi aussi ñu ngi def lépp li nga xamante ne ñu ngi ñu tey am na benn histoire boo xamante ne maître Kabo da ko doon expliquer ci euh, ci exposé bi mu ne benn gaal boo xamante ne dafa dafa doon dépassé El Hierro te El soo ko dépassé rek ça veut dire que dégg ngeen dañuy def tout ba récupérer gaal gi nee na bañ ko récupérer ba sauver ñoom dañ doon jooy euh, euh, migrants yi di jooy donc mu nekk ay mbir yoo xamante ni tout le temps soo fa toggee sa xol mënut a ñàkk a tooy xale yi dañuy yaakaar suñu yaakaaree ñuy fekk si lu bokk ak la nga xamante ne moom la ñuy dund. et tey soo demee ci plage bi da ngay gis ni ñuy promenader ni ñu leen gis parce que ñoom am nañ ay heure de sortie am nañ droit sortir ak yooyu des fois duñ génn ak seen ñi nga xamante ne ñoo leen di. Euh, accompagné mais da leen di gis ak seen i bracelet des ñu toog ci plage bi nga xam ne ñii am nañ déception bu rëy rëy parce que lañ doon xaar peut-être ak lañ fekk si bokkul tey foogoon nañ ne suñ ñëwee automatiquement dinañ am liggéey duñ ko am. dinañ am fu ñu toog amuñ ko am nañ télé te soo amul bokk bu la jël si wala amoo foo toog wala amoo foo nekka da ngay génn soo génnee yaa ngi ci mbedd bi wala di nga am euh, ay soucis yoo xamante ne après da lay leneen donc je pense que tey autorité espagnole ñu ngi def li ñu mën autorité sénégalaise yi aussi war nañ gën a mën a penché wu ci solution ci problème bi naam ñu ngi def ay jéego ñu ngi def li ñu mën ñoom mais war nañ gën a mën a penché wu ci problème bi pour solutionner ko ensemble pour ñu mën a trouver solution. et je pense que ci gàttal loolu lañ mënoon a wax parce que mënuñ wax lépp parce que fee la fa xew day na waar yi trop trop trop trop il faut nga demal sa bopp pour mën a mën a gis lépp.